Jaja Fete, Jaja Fete sama gay. man malam Mister Shake Depi Brooklyn New York Tadi dama ñëw defaat leen beneen video. Si Usman Songko le patriote Wow, nak dañu bëgg like laaj ndax bu Usman ne Ousmane Sonko moo yor réew mi li ñu gis wakaam est-ce que dinañ ay militaires yoo xam ne dañoo doon liggéey ba retraité ba liggéeyatuñu am fu ñu leen joxoon ñu dëkk fa fanweer at muy wax euh, ñu koy tuddee terme sud Wakaam soixante dix neuf famille juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay famille ñu génne leen génne leen seen dëkk seen dëkkuwaay ñu gis waa Descos gendarme yi ñëw daal di nangu suuf si lu tax ñu nangu suuf si ngir dañu wax ne dafa am ñu tudd comico la ñu wax ne ñoo ñu tudd ñoom ñoom suuf si man gis naa ci loo xam ne dafa doy yaram ndeysaan gis naa ci benn maire mu mel ne dafay daanu leer billaahi di say di yuuxu nga xool xale yi ñu yuuxu ñu génne leen Sénégal ñëpp xam nañ ne dëkk location dafa métti ngay ngay fay fi nga dëkk dafa métti kon yow bu fekkee ne da ngaa nekk militaire nga yàgg xeex ak Sénégal am na ci ñoo xam ne gaañu nañ ci am na ci ñoo xam ne ay pilote lañu pilote maanaam dañu doon dawal avion avion roppalaan militaire ñooñu dëkk fa seen doom yi màggee fa ñu war leen génne waa léegi bu ñu leen génne fan la ñu jëm wax dëgg man ñun lii moo tax ñu bàyyi Macky Sall lii moo tax ñu bàyyi Macky Sall ngir Ablaye Wade lu mu bañoon Macky Sall tey moo ko nangu ndax Ablaye Wade ba ñii ne dañ leen di génne ñu dem ci moom Ablaye wat dafa ne moom du génnee juróom-ñaar fukk ak juróom euh, njaboot tey Macky Sall juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti njaboot mu seetaan leen mu seetaan leen ñu génn leen waa lii lan lay lan lay joxe est-ce que dafa war dafay wane ne euh, Ablaye Wade moo ëpp yërmande euh, Macky Sall est-ce que lii dafay firnde ne euh, tey Sonko war nañ ko mën jox réew mi ndax kat pàccoo bi pàccoo bi dafa doy waar dafa mel ne ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ñi am doole ñi am doole ñoom ñooy dem ci euh, Macky Sall wala ñu dem ci ci yenn kilifa yi daal di leen jox xaalis bu leen joxee xaalis lépp lu ñu bëgg am ci attakaay ñu am ko ndax ñii kat seen xeex dafa yàgg yàgg nañu dem ci attakaay bu mag ba yàgg nañu dem ci tribunal waaye saa yu ñu tribunal gagné nañ len ñaar yoon wa comico gagné nañ len ñaar yoon waaye wa comico ci seni pexé pexé nañu ba lijjanti dem cour suprême moy attekaay bu maga maga mag bi mo mo leen jox dëgg léegi nag waa Descos ñew di len génné li dafa ñaaw nan ngay mëna a ak Macky Sall ci li gis mënd bi man mënd bi man guddi gu nekk dama koy sétane Kër Massar sama yaram fay daw kër dafa dafa jafé gis nga gaay kër moy lepp li américain di wax di American dream moy le rêve américain moy il faut nga am kër mais le rêve américain dafa am mais le rêve sénégalais tam dafa am sénégalais même boudé pokos pokos même boudé fo xamné barak la sax sénégalais mom compliqué wu sénégalais mom na am fu mu dëkk rek vraiment Macky Sall waruloon seetaan li lii ñaaw na ñun nak li moo tax euh, bu ñu Sonko nek jambar ah ñun dañuy dañu dañu am yaakaar ci Sonko am na ku ma bind sama benn abonné bu ma bind mu ne ma Mister Shake yow Macky Sall nga àndaloon waaye est la moo la wóor Sonko du yees Macky Sall ndax ndax gàmmi gàmbi yaay jàmbe ni Sonko euh, tàmbali woo la noonu la euh, euh, ni yaay jàmbe tàmbalee la Sonko di tàmbalee Sénégal ci njëlbeen bi day nduru ku baax waaye bu ñu ba ci biir moo yees Macky Sall xam nga lan laa ko tontu. dama ne ko Macky Sall fi mu nekk nii ñun dañu ko jox réew mi juróom-ñetti at juróom-ñetti at yi ñu amoon yaakaar ci moom gis yu mu commencé woon yu mu tàmbali woon liggéey waaye 2019 bañ ko nekkate moom ñaari mandaa rek la soxla woon ba mu amee ñaari mandaa daal ci la noppalu ko defatul dara terre bi taxaw lépp taxaw léegi teer bi lan la ci Macky la wax Macky Sall nee na déwén 2021 ba léegi waxuñu kañ kañ 2021 dafa ne rek ay weer fii ak weer xam nga Sonko waxoon na ne terre bi du mës a daw Sonko waxoon na ko Sonko mooy opposant Sonko mooy xeexkat Sonko moom la ñu gis euh, euh, fële Casamance mu yor kajandoom di bay tool yi Sonko moom la ñu gis Saint-Louis Sonko moom la ñu gis Louga mu am ay tool Sonko moom la ñu gis muy wax nit ñi dem leen nga maye deret Sonko moom la ñu gis muy tëkku Mansour Faye ñun loolu tax ñu am yaakaar ci Sonko Sonko mënul mel ne yaay jàmme ndax yaay jàmme ah militaire la woon te yaay jàmme dafa foqati nguur xam nga kon Sonko. mënul yées màkki Sall ndax Macky Sall fi mu nekk nii bu ñu ko bàyyeeg réew mi daf daf ñuy sànq dafa ñuy sànq ndax bor bi rek bor bi rek mi ngi ñuy bëgg a rey mi ñuy bëgg a rey te Macky Sall ñun luñ ñu si jaaxal mooy dafa mel ne ana xol yërmande ñun dañu yaakaaroon Macky Sall dafa am xool xol yërmande ndax ku jël kat vingt cinq mille juróomi téeméer juróom euh, euh, waaw di ko jox euh, bourse familiale di dimbali ñëw di deel doole ji ñun yooyu lañu gisoon ñu ne ah Macky kii kat xol bu raf xol bi rafet na ñu gis jabaram ji Marème Faye Sall ku bëgg nit làqatuwul nit ñi di di jaxasoog nit ñi ñu ah ñii am na yërmande waaye nag waaye nag ñun dañoo waaru ndax boo toogee gis ne xale yi liggéey yi fi Macky Sall waxoon ne da koy def da koy jox xale yi cinq cent mille emploi la waxoon juróomi téeméeri junni liggéey la waxoon ne moom lay indi waaye ana liggéey yooyu ana liggéey yooyu Marème Faye Sall léegi dafa mel ne dafa gedd ah gisatuñ ko moom tamit ni mu daan def def mu koy def ba ñun sax naan dafa feebar ak feebarul loolu nag moo tax ñun ñu ne dañuy ànd ak Sonko ndax kat wax ji Sénégal wax yi dafa bëri te rek da ngay yeewu déggaat ñu ne côté aéroport suuf si pàccoo nañ ko ah pàccoonoo ko pàccoo nañ ko loo xam ne cinq cent cinquante deux parcelles maanaam juróomi téeméer ak fukk ak euh, euh, ak juróom fukk ak ñaar ci suuf yoo xam ne dañ ko séddoo ki nga xam ne aéroport bi moo fa nekkoon aéroport Euh, Léopold Sédar Senghor aéroport bi bi nga xam ne moo nekk fële fi yoof suuf si ñu jël ko wala ñu jël ko def ci lu loo xam ne day day njëriñ day jëriñ waa yoof wala waa wakaam wala ñu fa dëkk mais déedéet dañ koy dañ koy seddoo gis nga Sénégal li ñuy wax la boulimie foncière xoolal littoral bi ni ñu ko def Ndeye Ndaak def na ci reportage euh, kii def na ci reportage euh, nu mu tuddati Pape Alé Pape Alé ñaa def na ci reportage xoolal suuf géej gi ni ñu ko sàccee ni ñu ko paacoo ah nangaleer ngay dégg problème dégg problème tob euh, tobbeen di dégg problème gàddaay waa loolu yëpp nan nga koy déggee nag di ànd ak Macky ñu bëri naan ma yow da ngay topp Sonko ndax xaalis nga bëgg man su ma bëggoon xaalis ci Macky Sall laay des ndax Macky Sall mooy président moo yor xaalis réew mi moom mooy leb dafa lebal lebal leb waaye nag li mu leb fan la ko dugal fan la ko dugal léegi Macky programme moom xam nga mooy lan way tubaab yi way dimbali leen ñu baal leen ñu bor bor bi loolu mooy programme Macky parce que Macky xam na ne ni comme ni ko Sonko waxee il n'a plus les moyens de sa politique Macky yoratul xaalis ba pare nag moo tax boo waree liggéey rek danga war a liggéey gis nga 2019 bañ ko nomee bañ ko fale président dafa waroon continuer ni mu doon def mu fexe terre bi baax mu fexe lépp baax waaye dafa ne ah fan lañ ma rek xaar ma toog noppalu ko noppalu ko boobu nag moo ko rey gis nga at boobu mu toog liggéeyul deful dara mbas mi ñëw nag gën ko rey nag Mali ñëw Ah, ah te Guinée mi ngi waaj yëngatu Côte d'Ivoire mu ngi waaj yëngatu nguuru yàlla rek moo dul jeex Macky Sall li ñu koy wax mooy mu dimbali waa terme sud nañu fexe ñu delluwaat leen seen kër ndax lii dafa ñaaw lii ñaaw na mais bu ko deful incha allah ñun ñun daal am nañu yaakaar ci Sonko ñun loolu tax ñuy ànd ak Sonko jaajëf gars yi